looy looy def Ousmane Sonko mi ñu investir. samedi bi ñu génn mais moom ay ñu man bu ma neexoon ma investir la mais ndax di nga bokk. ku mu neex investir ku la neex man su ma mbaam pour mi sa laa bëgg investir. mais yow suma xarit di du bokk quelqu'un comme nañ ci plateau Kër Jaraaf ne day dafay dafay bokk il a la possibilité. libre na wax loolu. kooku Pape la Cheikh Amine mu ne Sonko du bokk. maa ngi yow ñu bokkee. non man lan laa ko def ka nga war a laaj dama ne du bokk c'est pas méchant yow doo bokk man du ma bokk moom du bokk. d'accord. te sénégalais nga lu mu la ëppalee ci réew mi. non mais moom chef de parti politique la man du ma chef de parti politique man journaliste mais amoon nga droit dem taxaw. mais j'ai pas encore ces ambitions là. man amaguma ambition. mais bokkoo. waaw Sonko du bokk loolu loolu man bokkuma Sonko du bokk man it du ma bokk.